di leen bégee yeah. juste pour wax ci ben affaire bu ndaw rek moy entre ak axlu brick gay rap game lañu wax même bu ngeen di clashanté yamale len ko ci game te bañ ci dugal ay affaire de kaoulak ay affaire de taaliba baay ay affaire de touba ci yoyu yamale len sen clashanté sen bir ngeen yamale ko ci affaire de ruel affaire de rap. mais pas ay affaire de góor jigéen ay affaire de xastante yéen ngeen di def du rap xastante la yéen yéen a yàq game bi parce que respecté wuñ te respecté wuñ woo te woo woo leen sax te nit ki booy clash nit ki sax da nga koy respecté ba ñu sax dugg ci ay affaire de loolu ñàkk xam-xam la ça veut dire que ni yéen yéen li ngeen di def sax rap li ngeen di def sax xamul leen ko maîtriser wu leen ko yamale leen seen clashante ci seen clashante bañ cee dugal diine ak tarixa yi. doomeraam ngeen